mais Cheikh day ñëw directement wax nga ko sànq muy sa combat ak Ndongo Lo ñu gis ni da ngay xale boo xamante ni. bu bëree mu neex bu feccee mu neex xale bu am feeling xale boo xamante ni def na 16 combats Cheikh Tidiane Niang def 5 combats xale bu am jom bu am coow. bu am jom bu am coow. def 16 combats def 16 combats. Mhm. waaw ndax loolu ñun tamit bëgg neen koo def. Mhm. waaw mais peut-être wasakam la te moom tamit yoon boo xam ne da si war a jaar jaar ko. Mhm. waaw nu mu doon champion nag looloo tax ñun tamit ñu accepté combat bi waaw. Cheikh. Euh, combat bi Ndongo Lo jëlal ko boppam. Mhm. gis na ñëpp xam nañ ni fi muy jóge mais kon ni ko ñëpp di wax Ndongo Lo dafa nekk xale boo xale bu am jom xale boo xamante ni defet du tax mu découragé parce que du na lu nekk mais fullaam ak jomam tey mën nañoo wax ni loolu ko gën a yokk coowam ci làmb nga jël ko te li ñu bari nag dañ doon wax ni combat bi est-ce que réellement taxaw na ndax yow li nga nekk dóor dóoraat te Ndongo Lo ku ko xam xam ko ak waa parcelle mais combat boobu noonu Cheikh Tidiane Niang ba ñu ko proposé est-ce que réellement bañ la ne Ndongo Lo ne dina taxaw wala combat boobu na la def ba taxaw. ah combat bi nu mu def ba taxaw promoteur bi moo ko dox rek. mu taxaw man moom aw ma problème yooyu. Mhm. waaw lamba la rek bu jeexee rek jeex na. mais dutewoo ci benn yoon dutewuma ci benn yoon ndax Ndongo Lo gënu maa bokk parcelle. Ah, Fatima am na loo xam ne man duma fi toog di koy wax. jour lamb Eumeu ak kii nu mu tuddati. Eumeu Sène ak euh, ak Modou moorloo bu muy bu mu koy daan bu mu koy daan boobu maa ngi jël làmb mbapat 3 millions te am na loo xam ne nag du ma fi toog di koy débat ndax amaluma benn chance mais am na loo xam ne tey peut-être man barki Seydina Mohamed laa lay wax de am loo xam ne dama kaa gis te xam ne fu ma ko defee tamit Modou Lo man naa am ndam te def naa ko waaw. def naa ko uh-huh. waaw. mais sa combat tey ah? dina am lu ko yokk. waaw dina am lu ma yokk bu baax. Mm-hmm. waaw ndax Ndongo Lo champion bu mag la. waaw fas yéene tamit di bëri ak moro ay moromam rek. Mm-hmm. waaw man daal jàmm laa koy ñaanal ak tawfeex. Mm-hmm. waaw di koy ñaanal mu am jàmm ba jour bés baax. mais yi. maa ngi dégg commentaire yi bu baax. ah lu ma dégg bari na de waaw. wax si ñett. ah ñett ah wax ne ndongol ndax yoon bu mu jaar yoon bu ku mu jël waru koo jël loolu gis naa ko. ci commentaire yi. mais est-ce que réellement Ndongo mënoon naa jaar feneen fudul ci yow. Ndongo mënul jaar feneen fudul ci man waaw ah, waaw loolu la yàlla dogal rek loolu moom yàllaa ko dogal looloo tax mu ñëw jaar ci man waaw. Cheikh Diagne ak Ndongo Lo ku dàq bëre. <laughs> làmb <coughs> non sérieusement dañuy waxtaan. <coughs> Lamba. kenn daaku ko Fatima. kenn daaku laa bëri. nit mun na maa daan nag mais senegal barki Seydina Mouhamed kenn daaku maa bëri. billaahi wallaahi tallaahi. mais mun na bëri de. bu baax yàgg naa di koy suivre. champion la jàmbaar la. Mm-hmm. barki yàlla dafa am jom am fulla am fit. day xeex day xeex day bëre. billaahi. ba pare après yow nga nekk naanaan. ah mais kon kon kon combat boobu yow lan ngay wax Ndongo Lo yéen danga bëgg yow danga bëgg yéen ñaar ngeen bëre ba àdduna bi yëpp xam seen bëre wala da nga bëgg xeex ak moom yow lan nga koy wax pour yéen ñaar <laughs> ban nga ban yow boo sañoon ban méthode ngeen di bëre yéen ñaar. di leen xeex di leen bappat. loolu laa bëgg ngeen bappat. ndax yéen ñaar ay ndaanaan ngeen yaa ko est-ce di ngeen defati interview sax ndax ah damay yaakaar na ngeen bañee nii di ay nit de ndongoloo ak si man bëre ah. rawatina ah, seeña <laughs> astafurlah mbay yekki ni xamul lu mu def sax <laughs> non na ko def lit ah, waaw <laughs> ah waaw ndongo day xeex bu baax mm. ndongo balaa muy bëre day xeex day bë day xeex ba pare soo bëre non xam naa ko bu baax. bu billaay xam naa ko bu baax. moom tamit est tamit bu baax. nag waaw peut-être. Hmm. waaw. mais man dama kaa supporter. supporter nangu la woo. kaa supporter billaay ay combat ay com bëri na ay combat yu yoo xam ne da da da kaa bëri moom dama ko doon faral. billaay walaay tallaay am na benn combat mos na maa fekk Thiès. Hmm. ñu ngi woon regroupement ñun ak ñoom Papa hmm. boobu ñu ngi doon waaj Algérie. Papa Sow wax na ma kii mooy Ndongo Lo ma ne ko kii damay dégg turam barki yàlla. mais man dama kaa supporté jour boobu sax moom moo daan. Oh, billaahi. kon da bëre koo fan. waaw fan naa ko. waaw wax dëgg mais dinañ bëre. di ko néeg baa doon combine. Eh, eh, baay nekk sama ginnaaw. moo hmm. combine barki dañ may rey. combine. Eh. <laughs> astafurlaay. parce bokk loon mënul seddoo bokk ngeen Modou Lo xam nga noonu ko gars yi dañ koy nuróoleeg Modou Lo. waaw bokk ngeen Modou Lo. bokk ngeen Papa Sow Modou waaw. bokk ngeen Gora Sow waaw Modou Modou ak Papa Sow mosuñ bëre. <laughs> Modou ak Papa mosuñ bëre. soo ko nekk ay xarit. <laughs> Eh, jeex na fu jeexee rek jeex na bokk Yékini Junior. fu jeexee rek jeex na bokk Gora Sow fu jeexee rek jeex na. mais yéen ñaar li ngeen bokk dafa jege. waaw dafa jege. Hmm. waaw. que le meilleur gagne rek. mais noonu nga kon li tax mu jël combat bi am na lu mu xam xam naa dafa maîtriser booy bi. ah loolu tam peut-être. te ñaari combat am xam nga loolu. xam naa ko dëgg naa ko moo benn booy bu tudd Sa Thiès Gambie. xam naa ko yaa ngi gëstu ci kii Ndongo de. lamb bi fooxeewu ma ko kafeewu ko. caaxaaneewu ko. dam kaa respecté. ñu nekk sama ginnaaw ñoo gën a bëgg combat bi Fatima déggoo ma de. Mhm. barki yàlla. Mhm. mais ñi naan Ndongo Lo du sa jaarukaay loolu lan nga ciy wax. jaarukaay maanaam. kon c'est-à-dire que ni Cheikh Mm-hmm. amaana bëri naa ñu ëpp euh, doole nongo bëri naa mm-hmm. ñoo xam te ñu gën a supérieur nongo mais dafa yaakaar ni kat euh, ki muy bëree daf koo xamul 100 pour parce que ñu bari sax dañ ne Cheikh Tidiane ñaa ñii naan moom mën nongo parce que fi mu jugee mais est-ce yow yaa ngi bàyyi xel ni carrément ki ngay bëree ndaanaan la. barki Seydina Mohamed maa ngi koy bàyyi xel ndongo nu mu nekk ndaanaan loo tax ma abseté combat bi barki yàlla billaahi loolu maa ngi siy bàyyi bu xel bu baax a du làmb du caaxaan kon am na loo xam ne tey man duñ ma yebal ba pare may doxee may doxinee yeneen ñoo xam ne nekkul noonu quoi waaw incha allah combat bi lu mu war lépp dama koy def incha allah di ñaan yàlla may ma si ndam bi seddu guy waaw. Euh, Cheikh euh, kaddu yi ah, am na solo parce que nee naa leen ñoom ñoom bëri duñ ay ennemis bu ñu xasee ba bëre jeex na jeex na wax ndax li mu wax moom wax dëgg yàlla rien à dire wax na wax bu rafet macha allah dérapé mais Cheikh beneen bi mooy ñu gis ni làmb. ba léegi tijjeegul affiche yu bari taxaw na nan nga gisee affiche yi ku ci mel ni Balla Gaye ak Bombardier nan nga gisee affiche boobu. waaw ah, affiche boobu combat la rek comme combat yëpp waa moom la ba demee aller retour la quoi waaw aller boo gisee am na retour retour la waaw ñoom ñëpp suñuy garant la ñu ngi leen ñaanal waaw ñu fekkee ko ak jàmm waaw que le meilleur gagne rek. waaw ah, que le meilleur boobu noonu ñu gis ne Balla Gaye bëre woon na ci amoon na li mu wax dama feebar Bombardier li ko dese bareetul. pour mu retraité léegi yow loolu noonu ah nan nga ko gisee que Balla Gaye boo woon ak bi est-ce que am na différence. am na différence kay. waaw ah, ndax instant yi moom dafa gën a taxaw am loo xam ne lu bari def koo rectifier waaw peut-être am na loo xam ne nekkoon na ci te nekkatu ci instant yi mu si yoon bu baax daal waaw di koy ñaanal bu baax ndax des fois damay gis. ay mbër yi am problème di ñaan Balla Gaye ñu ngi koy woo ñu ngi woo Balla waaw parce yàlla loolu moom dama kaa rafetlu ci moom trop trop trop macha allah waaw. Tapha Tine ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang combat boobu nan nga ko gisee. <laughs> ah combat boobu ah combat déclenché la de. waaw ñoom ñaar ñëpp. combat déclenché la waaw. na favori. ndax am na favori. Mm-hmm. ah. mënu maa wax ne am na favori mënu maa wax ne amul favori lu ne xaj na si waaw ndax ñoom ñëpp ay sadik lañu booy ñaa bandi cerveau la mhm. tafaatin tafa <laughs> borom baala non borom baala ah? non daa xam loo xam ne dama kaa xam tuuti si booy ñaa looloo tax waaw ma ne la bandi cerveau la hmm, damaa <laughs> dama kaa suivre damaa xool bëre bu muy bëre quoi bëre bu muy bëre moo tax ma ne ko bandi moo tax ma naan bandi cerveau la. ñoom ñaar ku dàq ah. boo ñaar Tapha Tine ku ci dàq bëre. ku ci dàq bëre non mun maa wax ne kii moo ci dàq bëre nag wax dëgg ne yàlla. waaw am na ñoom ñaar ñëpp a mën bëre. waaw. ñoom ñaar ñëpp a mën bëre lu ma gis kii di bëre eh, nu mu lu ma gis. Eh, Boy Niang di bëre gisuma ko Tapha di koy bëre mais li ma gis Tapha di xeex gisuma ko Boy Niang di koy xeex waaw. Gris Bordeaux Eumeu Sène wala Gris Bordeaux euh, Lac de Guiers ban moo la si dàqal. Gris Bordeaux Lac de Guiers. wala Gris Bordeaux wala euh, Lac de Guiers Eumeu Sène bu la dàqal. ah am na benn bu ma seetaan de tudd bu ma gis benn euh, commentaire Lac ak kii dañoo mos a bëre. ak Gris ah, ah dégg naa ne comme ñee mos neen bëri kee mos na bëri ak ama ne dégg naa neen ko jox giri waaw comme ñooñu mosuñ bëre daal <coughs> ah neen ko jox giri rek. Mama Lamine Garga baa boobu noo gisee. ah Mama Lamine ak Garga ah <laughs> Fallaw rek lépp jaam. lépp jaam ci ban côté. ah ci ban côté ah di ñaanal Garga rek yàlla may ko ndam bu seddu guy. nga naa daan noonu Mama Lamine daal kon ni ko ñaanee nii. Garga amul ku mënta daan ci làmb Garga xam naa ko bu baax. xam naa ko bu baax day def loo xam ne comme bëgg ko te moo koy gën a bëgg lu mu bëgg comme fuy bëre ak yow day rey yaramam bi nga yaakaar ne kii ab benn nooy neex la <laughs> mais foofu duggee nga xam ne lépp dégg la. Garga xam naa ko bu baax. moom Maama Lamine ku moom Maama Lamine. ku ëpp bëri. ah Garga moo ko ëpp bëri. ci lépp ci lépp. mais Mama Lamine mën na koo ëpp safara mais Garga moo ko ëpp bëre Garga de moo ko ëpp bëre. Mm-hmm. coowal CNG noo gisee gis nañ ni le 31 octobre bii di ñëw incha allah di ñaan yàlla ñun ñëpp fekkee ko ci jàmm ak salaam nan nga ko gisee Alioune Sarr 31 octobre lay jeexal. bien vrai que CNG nekk loo xam te ni danga naan man maa ko bëgg a jël doy doy nekk loo xam te ni état moo fi tegoon Alioune Sarr moom la gars yëpp wax te ñun ñëpp moom lañ xam mais yow nga gisee instant bi coow li gis nañ Keba Kanté gis nañ ñu bari Tyson mais nan nga gisee coowu CNG bi. waaw coowu CNG bi ah comme ministre des sports nu mu koy defee rek waaw ndax coow moom làmb moom ak coow ñoo ànd lool du ñàkk képp tamit koo xam ne danga nga faa bëgg falu rek peut-être di nga wax sa xalaat waaw di nga wax li nga bëgg. mais Fatima ñun instant yi waroon naa fekk waroon naa fekk ñuy dem Europe di ñëw ndax dañoo bëre dañoo dañoo compétir dañoo compétir ba sonn mm. indi génn indi défendre couleur Sénégal xam nga ne c'est aussi pour ñun ñu am ay visa mhm. bëri ay CEDEAO ba sonn indi ay médaille ba sonn du francophonie du CEDEAO fu ne fu ñu dem dañuy indi mhm. eri daa waroon a fekk ñu yor ay suñu visa ah. di dem ak di ñëw lamb dañoo waroon a fay barki yàlla te ñun kenn mosu ñoo recevoir man lu ma boree lépp kenn mosuñ maa recevoir. yéen waa Lucef. waa Lucef te ñu ngi recevoir ay basketteurs yi ñu recevoir joueurs yi. te ñun ñu doon ay mbër. Ah. instant yi daa waroon a fekk ñuy dem di ñëw barki yàlla mais yow yaa reyantel sa bopp dafa metti trop te il est temps gars yi jox si ñu jàpp si tamit waaw da ngay dem làmb ñu yaakaar la man bëre naa lu lutte simple bëre lutte avec frappe bëre olympique te olympique moo gën a metti ndax bëre naar la si tapis lay si tapis lay doon dem naa si Algérie dem si Égypte dem si Maroc à Marrakech dég dem si eh, fi nu mu dem waa bëri na daal couleur Sénégal waaw dafa am solo trop ndax basketteurs yi lu ñuy def loolu la ñuy def joueurs yi lu ñuy def loolu la ñuy def te kenn mësuñ ñoo recevoir essant yi waroo waroo essant yi waroo neen am ay visa te ñu ngi nii amuñu dara ay visa mais xanaa ñoom ay rëg rek am neen ay sens rayante neen ba am lu ñu am waaw waaw ndax MMA bi waaw bu baax bàyyi ma lépp mm. bàyyi ma dara si sport mm. incha allah sens bi laa amul rek mais bàyyi ma lépp lépp luñ ma si woo tam dinaa si nekk incha allah waaw Cheikh euh, amagoo soxna non non amaguma soxna mais Cheikh mais am nga gel tey moom Cheikh nag am nga gel. <laughs> Adama bàyyi loolu waaye moo gën. non Cheikh am nga gel wala parce que man. dañ ma dama ne Cheikh Tidiane eh, ma Cheikh Tidiane Niang laa ko laajee dane la dañ koo trahir loolu nga waxoon dañ laa trahir mais instant bi xanaa yaa ngi ci bu dëgër Cheikh. non non ba tey. amoo ko instant yi nekkuma si allah. lamba rek hmm. mais war nga ma koo booleel ba dem seeti ko. <laughs> kenn yaakul sama xol kenn yaakul sama xol lu leer laa lay tegal ah. waaw. mariage quand comme que Ndongo am na soxna kay mariage quand. ah lu jot rek yomb. man daal maa ngi topp ginnaaw samay grand luñ ma wax ma def luñ ma tere ma baax. Aty Diagne ndax li mu wax ci li nga xam te ne moom mooy magam bi ndax wax dëgg yàlla nee naa leen nit chaque jour ku amul wéeru waaye da nga yomb bu wax. ndax kii nekk magam mënu ma tey Fatima fi lañ koy defee ndax kii dafa nekk koo xam te ne kenn la ci man sori ci man di jàpp ci samay combat bu baax a baax muy maa daba daba daba fay yee eh, kon ma maay sa buur nag tey sa sama séeréer yi quoi def sañseen bu yaan yi maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay chérie maa ngi am kontaan bu baax vraiment ci li ngeen def tey parce que mën nañ nañu ñun ngeen ko defal ndax am ñu kenn ku dul Seex Tijaan macha allah mu ñuy sagal di ñu sigal fu mu toll kon tey jii boo leen ñëwee vraiment ñëw fii mu nekk sama rakk macha allah di def lu am fula nag ak lu am fayda ndax nit ñi amuñu jot di ànd koo xamante ne nii li ngay liggéey doo ko jox sa àq kon boo gisee mu am li mu am nii tey fula gi mu ko jox moo tax mu am lii vraiment dañ koy encouragé di ko ñaanal rek moo xam fi mu bëgg a egg yàlla na ko fa yàlla yégali ci kàttanam ak yërmande vraiment am nañ fierté bu baax ak kontaante sa moom ni mu waa bokk ñoo jor ndax xam nga ne dara dafa fort. lu yëngu rek la ko yëngale ko ëpp doole ñu bokk ñoo joor macha allah mu ñëw nekk sama rakk ba pare nag taamu ma na xam nga man doo dong ma fii kon ku ñëw ci yow rek am na lu tax mu gis la wala gis na lu doy lu ko doy ci yow ba mu ñëw ci yow vraiment lu ma mën ak lu ma mënul lépp dinaa ko jéem nag ndaxte yaakaar dafa foor loolu moo tax di ko won ne ñu ngi ci ginnaawam guddeeg bëccëg subaa ngoon ndax ñun amuñu kenn ku dul moom te dañoo soxla jàmbaar yu mel ni ñoom. ndax mënoon naa def neneen te mu ngi góorgóorlu ci li nga xamante ne nii moom la ko yàlla sedd di ci wane njàmbaarteem kon nag ku ñu war a jàppale la di def appel di woo ñëpp nag waxuma euh, waa Niodior rek mais 19 îles yi nekk si îles yëpp ak fu séeréer nekk rek ñu ngi lay tàllal loxo pour nga ñëw jàpp ci parce que ñii dañ leen war a jàppale ay xale yi am jom lañu ay xale yi engagé wu lañ donc bu ñu amee ñu mel nii dañu leen war a jàppale gën leen a yoon bi fi ñu bëgg a ñu egg fa ci kàttan yàlla ngir ma nekk vraiment maa ngi koy encouragé di ko ñaanal fi bëggee bëgg egg yàlla na ko fa yàlla yeggale. ki muy bëri xam nga ko nangaloo. non man moom xam nga <laughs> mooy loolu. mais nag dinaa ko xam incha allah. xarañ waaye kii ragaluma ko. mën a bëri. déggoo ma de. xale bu jàmbaar. sama jàmbaar ji rek. aw ma dara lu may ragal ci moom. damay ñaan yàlla rek ñu ñaanal ko. kii buñ ko ñaanalee incha allah dinañu yóbbu fu kawe. man damaa gëm loolu man. macha allah yal na yàlla fàccat. <laughs> Cheikh loo ah, waaw lu mu wax lépp rafet la rek. waaw comme nu mu ko waxee rek noonu la fa demee. waaw mag la barki yàlla kii la muy def si man yàlla ko xam rek mais dama koy ñaanal lu mu bëgg tamit yàlla defal ko ko. du man kese kii ñu muy jàppale waa ñoojoor ampagaay rawatina sa waa ñoojoor barki yàlla ku mu xam sa da jàppale. incha allah naa la booleek moom mu jàppale la. waaw incha allah loolu du problème. waaw waaw loolu moom lu rafet la moom incha allah bu baax waaw di nuyu bokk neen benn groupe tamit waaw waa gang missionnaire waaw bokk neen boobu group ñoom tamit ñu ngi waaj bu baax a baax a baax waaw di leen nuyu tamit ñoom ñëpp bàyyi ñu kenn fu ñu limee rek dañuy juum waaw di leen wax ne combat bi muy lool dañ koo soxla de waaw loolu lu muy lu mu ñuy defar rek loolu tax tamit ñu jël sañ-sañ tamit ñëw ba caaro yi defee fi émission bi waaw ndax ni tamit amoo dara lu dul sa mbokk dañu suñ mbokk la daf lu ñu defal lu ne lu ñu bëgg gratuit dañ koy am billaahi walaay talaay waaw sonn si dafa sonn nag si sport football sa bu amee ñoo jox sax gars yi fu ñu ko woowee day dem fu ñu ko woowul day dem ndax loolu man gisal naa ko sam boobu waaw di ñaanal ñëpp jaamu nag euh, looy tàggoo waaw lu may tàggoo di woo sam mbokk yi nekk Espagne ñu jàpp si combat bi bu baax a baax a baax a baax waaw rawatina euh, Mama Daba sama mbokk la ndax man ay faata faata ñoo ma jur ma doon wagadu waaw te moom tamit wagadu la sama mbokk la cent pour cent euh, grand frère am dafa may jàppale grand allemand mi fay daf may jàppale chaque jour ñu ngi dëggante téléphone sama combat yi passé may na ma xaalis bu bëri waaw di woo Birane ci combat bi bu baax a baax rawatina waa Niodior waaw ñoom Payet ñoom Bakary waaw mobilisé wu waaw di nuyu ñoom Mamadou Kaya sama staff bi ñoom Mamadou Kaya ñoom Boubacar Kebe ñoom Idissa ñoom ñoom Mamadou waaw Mamadou njaay waaw fu ma limee rek dinaa juum maa ngi leen di woo ci combat bu baax a baax rawatina Matar Grand lamin Moussa maa ngi leen di woo ci combat bi di woo waa banlieue bi yëpp waa Diamaguène bi waa Fora waa Ginnaaw waa Kër Massar ñëpp maa leen di woo ci kombaa bi waaw di nuyu ñoo xam ne dañoo sonn si dañuy sonn si man ku ci mel ni Bira Maron Gere maa ngi koy nuyu di koy ñaanal bu baax a baax moom ak Yaaya maa ngi leen di nuyu bu baax baax ak Pinono ñooñu dañoo sonn si man waaw <clears throat> di woo samay mag yi nekk Espagne bu baax a baax samay mbokk yi nekk foofu ñëpp waaw ñoom Udul ñoom Ousmane Ndiaye maa leen di woo ci combat bi prési waaw ngeen nekk ci bu baax a baax combat bi dama ka soxla dafa maa jaral waa ñoojoor jon waar falia basul basal munde jinda fayaako ngajoor ñëpp bawut jam ñaajo fu ma limee rek damay juum waa ndun ñëpp maa leen di woo ci combat ñu ñëw jàpp ci combat bi waaw waaw di woo sam benn muy mutaar waaw maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax Motaar it sama combat bi daf may may xaalis bu bari nekk sama nawle ma nawle ko tamit waaw ku si mel na Ado waaw Ado Sarr waaw Seri Rock yi daf may may xaalis bu bari samay combat maa ngi koy woo ci kombaa bi mu jàpp si waaw Aseni maa ngi koy woo ci combat bi waaw Aseni Fata Waasel Ajal tam maa ngi koy woo ci combat bi ak ak Seni ak beneen Aseni Cheikh Ndoram bi maa ngi leen di woo ci combat bi ñu ñëw jàpp si. ñu xam ne seen ndew moo xewle di nuyu waa waa nu mu tuddooti sax suñ benn groupe fii suñ benn group whatsapp waa waa gang missionnaire ñooñu dañuy jàpp samay combat bu baax a baax a baax maama daba bi ci la bokk waaw di ñoo rakam elelo <clears throat> maa ngi koy woo ci combat bi mu wax gaa yi ñëpp ñoom Homme Mystique waaw fi limee jum ñoom ñoom Label ñoom Eto ñoom Grand Arfan ñëpp ñu jàpp ci combat bi bu baax a xam ne combat bi seen combat la di woo waa Sirmang waa ñoom Baato waa Loog waa Sinik ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi waaw ndax combat bi dama kaa soxla trop waaw te combat bi am na fu ma mun a yóbbu tamit waaw maa leen di woo ñu ñëw ci combat bi jàpp ci bu baax a baax rawatina waa parcelle 1 ba 26 waaw surtout waa sama koñ unité 3 neen mobilisé wu bu tàkk waaw muy loolu lépp doon gratuit gars jàpp si nag ndax suñ combat day metti trop ay kaar ñooy jóge ay gaal ñooy joge ba Sirma ba ay gaal ñooy jóge ba ñoojoor ñëw ba appartement affaire yooyu noonu ak lekk bi ak lépp te loolu daa metti gars yi nañ ja neen si jàpp bu baax a baax a baax waaw di ñaanal ñi nga xam ne dañ may ñaanal ma xam le ak ñi ma xamul ñëpp maa ngi leen di woo di woo ñi nga xam ne tamit ñoom laa bokkal <clears throat> métier bi may def waaw waa aluminium ñoo waa ñoo waa ñoojoor aluminium ku si mel ne sama boy bi Jibril maa ngi koy nuyu bu baax a baax ñoom Seydou ak ñoom Sita maa ngi leen di woo tamit combat bi seen combat la ñu jàpp si bu baax a baax waa di ko remercier waat bu baax a baax moom Cheikh Tidiane Niang mu nekk koo xamante ni nee naa suñu xarit la mu nekk koo xamante ni depuis ba mu jàppee ba tey bàyyiwul euh, làmb moo tax ñu xamante ne dafa rafetal lépp di ko remercier ndax bu ko neexoon li yëpp bañ ko cee fekk mais dama ne ko Cheikh mu ne ma ñëw ñu def émission man maa ko waroon def war a déplacé wu mais moom moo ñëw di ko ci ñaanal nag bu baax a baax ndax moom suma xarit la di leen bëggee ah ku yëpp ñëpp ñoo xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre sur wasaare làmb wasaare TV waa diaspora bi amuñu seen fay ñu ngi leen di remercier bu baax a baax mais waa Las Vegas ñu ngi leen di nuyu sama gars yi nekk foofu yëpp yëpp yëpp Pata maa ngi lay bégee borom Italie bi nga xamante ni da ngay jàpp si combat bi ba nga jàppee ba tey bàyyi woon borom wi nee ne di kam nee naa la gars yi namm nañ la ndax nee naa leen yow lépp loo tëggul ci banlieue bi rek neexul Pata ba di la bégewaat bu baax a baax kàggu l'infatigable di ko remercier bu baax a baax ndax sonn na suñu loolu loolu loolu di lay ñaanal rek jàmm ak salaam yàlla defal la jàmm di bëggee képp koo xamante ne moom moo ñu doon suivre sur Wassare Lamb ak Cheikh Tidiane Niang di wax nag combat am ak Ndongo taxaw na Pape Yékini moom moo taxawal loolu di wax rek dinañ gis combat bu neex ndax ñoom ñaar ñëpp ñu am fula ci li ñuy def la ñaar ñaar ñoo xamante ni làmb ci boppam da leen war a delloo njukkal ndax ay xale lañ mais am na fu yóbbu làmb ñoom ñaar ñëpp wax dëgg yàlla combat bu neex lay doon kàggu ñu tàggoo tàggoo bu dul tàqalikoo rek dem xooliwaat beneen bër nonguloo xaar ñu ñi ngi ñëw léegi Cheikh Tidiane ñaar dégg nga li mu wax te xam naa ne moom sa réponse moom day sale di jox ñëpp di daje ba prochainement incha allah d'ici là portez bu bien